Oui, maximum de bruit, maximum de bruit, s'il vous plaît. nañu toog mën a may président Ousmane Sonko mu waxtaan ak population bi s'il vous plaît. daal nañ ko may noppi s'il vous plaît. la parole. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. le président du conseil départemental, M. Georges Mansali, qui est là, l'honorable député Goulimata Sidibé, les conseils municipaux IFINEC, le directeur de cabinet, le doyen Saho, ak daal kilifa yi fi nekk yëpp lim mun na am ah, jum tey kontaan naa trop fii donte Bassirou ne m'avait pas dit ça Bassirou wax moo ni nii lay deme tournée bi c'était pas prévu waaye bi ma ñëwee depuis quatre jours Bassirou daf ma ne bii pas duñ la bàyyi nga dugg Ziguinchor ba génn te doo def mini nemmeeku tour mooy nga dugg au moins dans alal bokkuloon ci programme bi vous savez pourquoi bokkuloon ci programme bi parce que dama mës jàpp ni fii li booy naan y a pas am nga ñaari ñaari élection yu jóge mooy élection yi gën a jafe parce que souvent c'est des élections yoo xam ne day opposer des fils du territoire su ñu nee commune de Ziguinchor candidat yi fi nekk yëpp doomu Ziguinchor nañu bu ñu nee élection député candidat yëpp au niveau départemental doomu Ziguinchor lañu waaye teewul te ku doomu Ziguinchor rek am nga fi ay abdi jàmm am nga fi ay mbokk am nga fi ay xarit. mais teewul ci ñaari élection yooyu yëpp Ziguinchor jox nañu une majorité écrasante moo tax awma ci sàkk nag ni élection bi ñu jëm nga xam ne élection présidentielle Ziguinchor ba Kolda en passant par Sédhiou peut-être du doon même niveau bi mais ñett yooyu fii moom xam naa ni 100 pour kenn mënu ko am waaye 90 pour cent moom xam naa ni lañ ko am fii nag. waa Ziguinchor defuñu ko parce que Ousmane Sonko est de Ziguinchor seulement parce que avant moi nit nekkoon na fi maire pendant vingt six ans nekk candidat à une élection présidentielle te gañewul Ziguinchor gañewu ko kon su waa Ziguinchor di choisir Ousmane Sonko ni ko weneen ak feneen ak feneen Sénégal di ko tànnee c'est parce que vous savez que c'est le meilleur candidat pour conduire le changement comme Sénégal. dama leen yàgg wax ni si vous rappelez élection présidentielle leen ne woon on ne choisit président la République parce que sama mbokk la wala ñoo bokk daayira wala ñoo bokk région wala jox na ma xaalis. loolu du loolu la ñuy tànnee pour président la république mais dañ koy tànn d'abord par rapport à son discours son programme mais aussi par rapport à son parcours ci ñaar yooyu la ñuy tànn ci base boobu ngeen di tànnee ba deux jox ñu majorité fii ngeen jox ñu ko local joxaat ñu ko présidentielle te xam naa ni 2024 incha allah gën saa tuuti 90 pour cent bi kon lopta lopta bi Basir woote loolu a Basiru Basiru Koli je félicite au passage Boba et yëpp ñoom Mané et toute la jeunesse te dam leen ne woon c'est pas tax ma ñëw nag ñaar la ba ñett d'abord c'est pour vous remercier parce que ça c'est waaye c'est pas évident remercier ci seen taxawaay parce que àdduna bi yëpp gis na taxawaayu Ziguinchor ci jaay doole bi ñuy essayé jaay doole comment Ziguinchor les gens parlent seulement la jeunesse parce que jeunesse bi la ñuy gis sur le terrain waaye mag ñi ñu ngi ñaan jigéen ñi ñu ngi ñaan ñëpp donc ñëw d'abord pour vous remercier comme je le fais le Sénégal ñaareel bi mooy nit nag ñaareel leen ni nag il faut pas dormir sur vos lauriers déglu leen bu leen parce que nag dafa mel ni Ziguinchor am na ñu leen roppi léegi de am na ñu leen roppi de sama mbokk Bawol yi waa Mbàkke dafa mel ni roppi leen de waa Kër Masar dafa mel roppi leen de waa Saint-Louis waa Tivaouane waa Mbour li ñu war a fii na ba léegi soo gisee maa nekkoon nii yëpp benn laay mais même diine daf ñu ne bu ngeen di concurrence da di concurrence ci lu rafet kenn ku ne dafa war a góorgóorlu ci essai raw moromam kon tey fierté la si ñun ñëpp ñu gis ni à travers tout le Sénégal Le peuple est debout et particulièrement la jeunesse pour dire non à cette tentative de liquidation d'un projet politique boo xam ne Sénégal yëpp am nañ ci yaakaar kon lu ngeen doon def benn da ngeen ko multiplier par parce que li ñu yàgg a xeex ñun ñëpp ñu yàgg a sonn ñun neuf mois moo des neuf mois. ci kattanu yàlla pour ñu voir l'aboutissement commencer nag appliquer les idées yu ñu jaay sénégalais ba sénégalais gëm ñu mooy ñu jëlee fi la corruption le détournement de deniers publics mooy randal xaalis bi ñu jëlee fi suñu alalu réew mi nga xam ne mu ngi génn réew mi ci loo xam ne caaxaan na te ñu waroon ko téye pour cette jeunesse ñu delloo suñu loxo suñu souveraineté moomal suñu bopp entre autres lii bokk na ci suñuy combat kon buñ ko pendant neuf ans lu ne ñu daj ko ci lu ne combien de gens ont perdu la vie ne serait pour la mémoire de ceux qui ont perdu la vie war ñu nangu lu mat dix personnes ci Sénégal ak seen retraite nu mu toll moo président lañ koy wax moo xam procureur lañ koy wax duñ ko permettre mu ne ci ay tappale ak ay complot dina mettre un terme à ce projet. kon nañu gën taxaw wax naa léegi ci Grand Dakar ñëpp jàmm la bëgg jàmm dafa neex ne toog sa kër tëdd liggéey bu jotee nga liggéey boo ñëwee ñu tegal la sa kaldu nga lekk ba suur naan sa jiwu kaju. lan moo ko dàq si àdduna élection dans les meilleures conditions les Sénégalais tànn kan moo leen doy léegi mu des léegi li nga xam ne moom la ñu ci liggéey mun naa leen garantiral ni fii ay semaine mënu ma leen ñaari semaine la wala juróom la wala fukk la waaye fii ak ay semaine bu soobee yàlla gis nga bayal bi ñu toog nii fii ay semaine suñu naree dajewaat bu soobee yàlla dina leer naññi amul moyen mairie Ziguinchor bi ñu koy jël budget deux milliards cinq cent la ñu fekk tey bi ñu defee conseil budget bi yegg na six milliards. les grands projet yoo xam ne moom la ñuy démarrer à partir de maintenant éclairage public bi ci la bokk fexe ba ndox bu mun cee jot ci la bokk infrastructure yi nga xam ne ci ay yoon yi ñu war a defar pavé ak yoon yi nga xam ne dañ ko war a dégager ba nit wër senegal parce que day def tournée économique man damay def tournée économique biir Ziguinchor rek bu ma sama tournée économique. li ma dinañ ko liggéey incha allah. bi dina jeex fii. jaay suuf boo moomul dina jeex fii. détourné ay termes état civil dina jeex fii. pour ñu mën def liggéey bi ñu bëgg a def na ngeen xam ni maire moom dong mënul defar dëkk bi defar dëkk bi kenn ku ne ci ñun na ci def wàllam man samay soppee ngi nii ñu ngi nii wala dama bëgg beneen yoon ñii ngeen bëree fii la jeunesse bu ñu wootewaatee pour les volontaires de la commune ne dañuy defar caniveau yi pour que nawet bu ñëwee lépp dañu bëgg a nettoyer koñ yi ak yeneen ak yeneen nii ngeen bëree nii génn xam nga tubaab dafa ne qui peut le plus peut fii si ngeen soor yéen da ngeen ak alkaat yi ba alkaat sonn dem toog démission bàyyi na leen

ñu ne Ziguinchor y a des à la mairie nangam nangam waa Ziguinchor xam nañ si am problème à la mairie bu baax. ñun liggéey moo ñu fi tax a ñëw te on va tout mettre ba nga xam ne dans deux ans trois ans les résultats Ziguinchor yëpp ci teg seen bët. ba bokk na ci projet yooyu su ñu demee balancer économie sociale et solidaire. ngeen ci xaalis ba tey am nañu lu mat cent millions yu ak yéen jigéen ñi pour ngeen liggéey. donc nous rien en retour chaque jour ma wax ko man duma jël salaire mairie Ziguinchor du ma jël carburant mairie Ziguinchor je ne prends au service exclusif de Ziguinchor loolu moo tax rek la ñuy xaar ci yéen su may daanelee nag mooy. xam nga dafa guddi te waa Bukot ñu ngi ñuy xaar dafa guddi te des nañu beneen étape muy Bukot a rek pour waa Ziguinchor. mooy bu leen kenn détourné de l'essentiel inscription sur des listes électorales Ziguinchor liñ ci def gis nañ ko en un temps record des milliers et des milliers de jeunes inscrits waaye bu leen ci xeeb benn su desee ay benn benn sax def leen ngeen di jën ci leen ci koñ yi jëlee leen ci kër yi ñu dem inscrire parce que chaque voix va compter pour que ñu am li ñu bëgg li ñu bëgg nag c'est pas de ay qualifier deuxième tour c'est de passer au premier tour pour am na loo xam ne Pastef da lancé woon sur tout le territoire ñu tuddee ko wër ndombo gis ngeen wër ndombo bi résultat dans tout le territoire sénégalais gis ngeen massivement malgré seen tappale pour inscription bi du mat sax un mois parce que soo si génnee jour férié inscription bi matul sax vingt jours wala vingt cinq jours mais malgré tout jeunes yaa ngi génn massivement inscrit donc benn benn yu des bu leen leen xeeb dem leen jëli leen ñaareel bi politiciens professionnels dañu foog ni ñoo gën a muus ñëpp fan yi dégg ngeen tool yi bëri na lool combine bëri kon nag ñu fi fi politique nekkoon dans les années quatre vingt dix dans les années deux mille foofu la nekk ba léegi. combine deal protocole lépp sur le dos du peuple. loolu jeex na Sénégal sénégalais yeewu nañ ñun nag ñun nag xëccoowu ñu de l'opposition ku ko bëgg rek may nekk. les Ivoiriens dañu wax ni tous les moutons se promènent dans les rues d'Abidjan mais ils n'ont pas tous le neex nga revendiquer statut boobu nag waaye bu ñu génnee ci terrain bi dinañu xam kan mooy chef kan mooy adjoint lancer waa di ko lancer les Sénégalais gis nga priorité nekkul ci bu ñu déglu sax débat yu mel noonu nañu concentrer sur l'essentiel l'essentiel c'est focus 2024 c'est inscription massive c'est massification dans quartier et dans chaque maison pour que au soir du 24 février 18h30 à 18h30 nekk mbir mi jeex na au premier tour la ñu plié affaire yi ñu leen di gërëm di leen sant merci beaucoup.